الرحمن الرحيم اللهم ذكرنا كل na نسينا وعلمنا كل ما جهلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi mbokk waa Taskiru Sabah di leen di siyaare di ñëw yéen ci seen numéro 464 tolloon ci waajtaayu tabaski di siyaare mbokk yëpp ndax duñ dugg ci lim bi jokkoo bi ci suuf ak yépp ci ànd bi yàlla yàlla def ko yiw faynu lu ci dëng mu soppi ko yiw defal na ko ay tuyaaba mu mel ni nag euh, àdduna lépp ay programme la tabaski bi ñu doon séntu mi ngi nii ñëw na moo mbokk mi kon la nga xam ni moom mooy mujj ci sa dund mooy tàggoo roogi ak yaram bi moom it day ñëw de day ñëw de dara yàggul ndax ginnaaw xamoo kañ la jekkal waajal jekk ba toog loolu mooy dëgg de euh, mbokk mi ni waaw daa am jullit yoo xam ni <clears throat> yàlla defa lu leen wërta koo xam ni dañ ci génn asaka kon ñooñu ponk boobu duñu ko def ñu yàlla wërta gëlul aj màkk ñoom it ponk boobu duñ ko def maanaam dangaa yam ci ñaar yooyu rek waaye ëpp na ñaar yooyu am na ñoo xam ne dund nañ musuñu am xarum tabaski musuñu am xarum liñ ko amaku su néew dañ leen koo jëndal waaye ko waaw mën naa dund bi mën naa dund ba faatu te ginnaaw bu waree ni gëm na yàlla rek yi ci des yu ci bari mu am ci ngànt am na am na feebar boo xam bu la dalee docteur yi dañ lay tere nga woor da ngay joxee rek diya mudd mudd ngay joxe yoo xam ni mooy mooy mooy taxaw taxawaayu li la waral muy di mar ci bëccëg yëkk xiif mu wàcc la léegi nag boo yoree feebar bi amoo alal jooy génn asaka amoo alal jooy demee makka kon yaa ngi nii wóoroo demoo Makka euh, nattoo asaka daanaka ginnaaw daal boo gëmee yàlla la ci mooy julli rek ngay def waaye li am solo mooy li ma bëgg foofu mooy dama laa bëgg a xamal ne la kon ndeke xol bi nga jox sa boroom sa boroom dong nekk ci xol bi ngay àttewu ci <clears throat> ay dogalam loolu ndeke moo am solo mbokk yi kon xol rek moom moo am solo yàlla yi muy digal yépp ngir lan la ngir nuy gën a defaru di gën a defaru ba keroog nu koy wujji bu ne gëm leen ma rek ñu gëm ko gëm ay yonenteem alayhim salaam yam ca waaye lu neex waaye def ak ah, kon kay ngëm gi du am njëriñ yàlla da koy booleeg yoo xam nag ni yooye moo lay sàmm mooy amal yooyu mu la digal nga di ko def alayhi salaam ñëw jàngale ko nag moom mi nga xam ni mooy professeur bu mag bi kon Euh, jërul mu lay metti ci nga nekk ak say moroom ñuy tabaski yow ñu lay jëndal am na ñu amul ku leen jëndal am na am na ñu amul ku leen jëndal mu ni waaye nag bu ma sañoon maa jëloon sama bopp waaw ñun kenn ku ci nekk bu waaye gis nga li nga xam ne moom la daam jëng bëgg moom la Muntaxa jëng bëgg la Abdou Jalil bëgg Mamadou Lay soxna ñëpp bëgg ko bu ko yàlla defoon day euh, léeg-léeg jafe-jafe dina am ndax sénégalais bu ne bu amul woto fi mu toll nii woto yooyu kon fan lañuy ñu mën a jaar bu ñuy daw sénégal bu ne am sa kër bopp naa kon location moom dafay jóge moom sénégal bu ne am sa kër bopp ndax am nañ suuf soosu sénégal bu ne nekk milliardaire suñu borom du defe noonu déedéet wax nañ ni euh, am na benn kilifa jox euh, woo ñeenti jëmm jox leen jox kenn ki ñeenti mburu jox nit ñeenti mburu ni ko demal séddaleel ma ko euh, ñeenti nit ñele séddale bi yàlla waa ji jël ñeenti mburu yi ñëw ci ñeenti nit ñi jox kenn ki ñaari jox kenn ci euh, benn bi jox ki ci des benn bàyyi ki ci des waaw walla defe naa defe naa defe naa ñetti mburu la woon ah, pour ñetti nit waaw kay mu jël ñaari jox ko kenn ki jox kenn ki wenn mburu bi ki ci des mu bàyyi ko mu ñëw mënu ko séddale ko mënu ko noo ko séddale mu ne ko damaa jël ñaari buri jox ko kenn ki mu des ñaar ma jël wenn wa jox ko ki ci des mu ne ko ki ci des nag mu ko kooku amul mu ko ay yow dégg nga li ma bëgg la jubloo def yàlla da dul tolloole yàlla du tolloole xam nga borom ñaari buri ñaari buri ëpp na nit waaw waaye jox na ko lu ko ëpp ki mu jox ay ay milliards ah wala millions yu bari yoo xam ëpp na la ki mu jox wenn mburu wi man nga ni kooku moom soxlaatul mburu moom moom moom doy na ko sëkk ak lu mu sant jaañ sant jaañ ak mbóoj mun wenn mburu wi doy na ko ki joxul dara nag gis nga ko loolu mooy séddale bi yàlla subhanahu wa waa mbokk mi bu ñëwaatee ci tontu laaj bi nee na euh, moom dafa gis seen dëkk ay boroomi xam-xam la ñu woon waaye bu ñu nekkee xale ku yor sob si ket wala sam xar Euh, bu ñu ko reyee euh, yooyu moom der bi der yooyu dañ ko doon jaay te sunu mag ñi nee na terewul ko te dafa dégg ci taskiit ñu nii dafa xaram nga jaay ci tabaski mi dara loolu de man mii wax ak yow de ca daaru gay gëma dëkk ak samay mag ak samay baay ñu bare bari loolo loola moo xewoon foofa ndeysaan suñ góor ga yàlla yàlla yërëm ko bàyyi mun jaay ba daa jóge mbellaj gàkku di ñëw daaru gay tund woowu caarin saar ak fépp lay jëm di ramasser der yi waaw der juróom der juróom xam nga boobu juróomi allah macha allah juróomi dërëm waaw su ko defee yow dañ la ko may ki la ko jox muy ki la yorloo woon xar mi moom moo la may der bi léegi yow miñ may nag su ngaa dem jaay ci lañ la may waxal naa la la kenn du jaay yàpp waaye fuqaa yi nee nañu ki ñu daggal ndawal kee daggal ko kee daggal ko ndawal ga léegi ëpp na ko moom te am na la leneen lum soxla day day jaay ci ndawal gi bu ko neexee dem jëndi lam soxla léegi mën a jëfandikoo ndawalam ndax ndawal ko si kenn mënu ko jëfandikoo kon loola dara nekku ci ci der yi ñu doon jaay bi ñu nekkee gone waaw mbokk bi mu ni waaw ñoom fi ñu nekk nii sëñ jël benn gàtt ñëw rey ko ci seen kër ndax li ñu bëgg ñoom lépp dañu ko organiser dafa am foo xam ni bu doon Sénégal mooy saaru service d'hygiène xam ni ñooy jël gàtt bi rendi ko defar ko boroom ñëw jël ko lekk boroom ñëw fay leen waaw xam nga dañu ah, dañuy bëgg li ngay jënd gàtt bi na dagan te foofu nga ma wax ñoo ñooñu nga xam ni ay chrétien lañu chrétien bi bu rendee jullit bi mën naa lekk waaw jullit bi mën naa lekk bu chrétien bi rendee lu daggana lekk ci jullit bi laax na nga waxuma nag mbaam waaw ndax ñoom dinañ gëm nañ yàlla te dinañ tudd yàlla dinañ ci ñëw sax xañ na euh, maanaam bala ñu àgg ci rendi suba wala ginnaaw suba incha allah ndax yu bari yu ñuy boole ci rendi Euh, nga xam ni li am na ku ko laaj mu ni man jigéen laa te damaa gis samam xar daal buñ koy rendi ki koy rendi waruma koo laal waaye dañ ni foog mu ñëw jël sama loxo teg ci ndiggam waaw loolu man gis naa ko ba tere naa ko sax gis naa ay jëmm di ko def ginnaaw ci koñ bi léeg-léeg dañuy rendil kale rendil kale bu ñu demee fenn fi ma gis euh, jigéen ji ñëwoo ko mu ñëw yow mii rendi mu jël loxoom teg ci sa ndigg waaw ñu ko soxna si looy def nii mu ne ah dañ ma woon ni naa naa laal kii ren di man ko loolu bokk ci loolu da ko yàq da lay xañum tabaski sori su ko defee mu daal di sori boo noppee nga leeral ko yu bari kon loolu buñ la ko santee ka la ko sant daa defe lu bokk na ci waaye bokku la am solo mooy yaa moom xar mi ki koy rendi xam na ni euh, xujja mii moo moom xar mi mu ni bisimilah yéene lottal xarum xujja mi daal di dawal paaka bi wax wax allah akbar mu jeex waaw kon loolu bokk na fi euh, li ñuy mooy toloo jigéen ñi bu baax a baax mbokk mi nii moom lay gis euh, gis na ci télé yi euh, nit ñi di wax ni xar moom fokk rek lu gàtt-gàtt war naa am huit mois deet deet demal ci demal ci siraaju salik demal ci téere yi maalikee yi demal ci téere yi fuqaaw yi xar wërta manqué douze mois bëkk dem bo suñ saab ni ma léegi bàyyi man sama xar mi euh, cinq mois la te bu génne woon jaay ko mën na ci am nangam ndax nu muy war tol tol na ni xam nga xooluñu yàpp bi ak dayo bi waaye âge bi âge bi lañ ni fokk na mat at bu dee xar bu dee bëy moom at mi kese la ci gën mu dugg ci ñaareelu atam bu dee nag am na ñetti at waaye na dugg ci ñeenteelu atam bu dee gëléem na am juróomi at ba dugg ci juróom benneel ba donte benn weer la loolu lañu wax waaw kon fokk ñett ak fokk ñaar gi yooyu yépp kenn du ci xool waaye at yi daal euh, weer yi na na mat wax ni man gis naa ko seetaan naa fii ci benn débat émission bu mag ma dëgg ñu cay wax ni euh, xar yi moom lu bon bon nee ñu war naa am wi mois huit mois kenn waxu ko de ci ngirum Malick mi ci téere yi ma la wax nii boo demee euh, war naa am at bu dee xay waaw bu dee xar yooyu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax Euh, mbokk mi li mu doon wax léegi nga xam ni euh, nit day dund ba dee te du am lu mu génne asaka alayhi salaam nee na ayama rajulin kasaba maalan min xalaalin fa atcama nafsahu aw kazaaha fa man duunahu min xalqillaahi fa inna lahu biha zakatun fa inna biha lahu fa inna lahu biha zakatan kooku hadis la boo xam ni siiw na lool ibnu Habbaan Hakim ak ñu ñeneen ñu bare bare bare mu ni képp ku am daal alal fàggu ko ci fàgg yi wén wu leew fa atama nafsu ah mu di ca lekk aw kasax wala mu woddoo ko muy jël ay yére ak mu jox ca kaneen ku dul moom it ci mbindee fi yàlla yi nee na mel na ni asaka ci moom mel ni loolu asaka ci moom kon gis nga ko ndekete kon tuyaabay asaka man nga ko am te amoo alal joo génne asaka dinañ ko dinañ uh, gën a waxtaane ak tuyaabay julli di ko am te julli woo bu booba yépp ay xadis yu leere leere leer gis nga ko xam nga mooy mbokk mi doon wax ni waaw aj day moom da ko bëgg lool waaye xam na ni daal dem na ba màggat ajit yonte bi nee alayhi salaam man gadaa ila al masjidi laa yuridu ila an yataallama xayran aw yuallimahu kaana lahu ajrun xaajin taamman xajjatahu gis nga nee koo xam ni euh, xëy na ñëw ci juma ngir lan ngir mu jàng fa xam-xam ngir lan wala mu jàngale fa xam-xam nee na kooka am na ci yool yoolub ki aj aj gu mat sëkk sëkk allahu akbar jóg dem ca jàngukaay ba rek waaw dangay ngay jàngi lan da ngay jàngi xam-xam waaw waaw ndax xam nga fokk nga war ngaa jàng xam sa diine ci biir xam sa diine boobu ci ngay xamaale yàlla ci ngay xamaale sa digganteek sa boroom la ca war ci ngay xamaale la lay xaar ëllëg yombal xiyaam ci ci lay xamaale ñi nga war a jëflante nit ñi ba duñ la lor doo leen lor ilaaxiri ilaaxiri gis nga ko kon man jaa masjidana xaata yataallamu xayran wa yuallimuhu fa huwa kal mujahidi fi sabilillah gis nga ko ndeke mën nga am yoolu jihaad te musoo xare ji man jaa masjidanaa ku ñu suñ jumaa jii yataallamu xayran aw yuallimuhu ñëw di jàng si lu baax ba noppi xamle ko yataallamu xayran wa yuallimuhu fa huwa kal mujahidi fi sabilillahi mi ngi mel ni kuy jaxat jàng ngir xam ngir ngir xamle ko nee na yaa kii ñëw di jihaat ci sabilillahi yéen a mën nañ laa indi loo xëy day taxaw taxawaayu koor buñ ñëwee ci ibadatul muqarrabina biñ fi defan daaw xaw ma ñi ñi jige yàlla ñi seen xeeti jaamu yàlla yooyu nga xëy dafa jàppale lool te am tuyaa ba am solo lool buñ ci ñëwee ci ngay xamee ndekkete kon jurit bi daal yàlla daf ko daf ko daf ko tànnal diine waaye daf ko tànnal téere waaye daf ko tànnal ab yonent waaye daf ko tànnal nag euh, jàppandal ko ay tuyaaba tuyaaba dafa jàppali jullit bi mbokk yi waaw dafa jàppali jullit bi waaw kon euh, borom bi subhanahu wa taala moom moo jagleel jullit ñi loolu ah, lañ la ñuy tëj nag lu ñu moytuloo nit ñi bu baax mbokk yi tabaski bu ñëwee bu jàllee doomi jegeen yëpp yëpp yëpp seen biir yi tàmbalee caar ak mag ñaak yooyu mbokk yi nañ ko bàyyi ndax lan nañu bàyyi yomb yii nga xam ni xeetu jus yi xeetu boisson yi ñuy liggéey ah yaa ngi ci xeeti carte yoo xam ni di boole yàpp bi lakk nga ko def ci moutarde moutarde bi bu leen ko ci boole mbokk yi baaxul ci biir yenn kib yi baaxul ci biir kib yaa ngi ci moutarde ngi ci nga daan boisson gazeuse bi mbokk yi loolu xol ci benn biir kon waxtu wi daal jot na nu bàyyi bu suba ak jàmm incha allahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.